woy politique yi ñu ngi woyal seen i mënin ci campagne électorale bi le fële ca mbaaw nag caravane bi nga xamante mooy bu Abdou Karim Sall bi moom it taw amal nañ ko niki tey ba tax na rek ki nga xamante mooy njiitu APR bi nekk foofee sax moom ma ngay dànkaafu rek ak ñooñam di leen xamal ne daal kenn ku ci nekk rek mën ngaa def sa campagne te benn jafe-jafe du am looloo waral muy wax ay ñooñam sax ñu bañ a indi xiiroo ŋaayoo bañ tamit yàq affaire yu ñeneen ñi lépp daal ngir campagne bi mucc ayib. dañuy def caravane wax ak yi les jeunes na ngeen yore spécimen yi ngeen distribuer ko i ba heure wu jot bu wàcc lenn laa leen di ñaan bu leen provoquer kenn bu leen répondre ci benn provocation affiche amour ici, ñuy romb affiche opposition yi ngeen di romb waxuma kenn mu laal affiche opposition vous leen la seeni affiche provoquer leen provoquer Nous ñuy def une campagne dans d'excellentes conditions discipline discipline lañu C'est ca garage Mbao nag mom danaka mën nañu wax ne daal ndam la fa jëlee ndaxte nag chauffeur yi jox nañ ko seen i kàddu nee nañ ko daal ñoom ñëpp danañ ko euh, votel ci campagne électorale bi nga xamante ni si la ñuy tànnee nag ndaw yi nga xamante ñooy teewal askan bi ca penc ndawu réew ma. responsable du garage de Mbao je suis derrière monsieur Sall et je serai derrière monsieur Sall incha allah euh, pare na pour recevoir nu nag c'est juste pour pour passer l'information à tous que parrain pour recevoir nous demain à 18h Que pourquoi ramener ni au siège en face stade Mbao Que pourquoi ni pour ñew nous sommes tous derrière monsieur Sall merci merci. merci doyen Kébé Content nañu trop trop trop trop trop ci suñu ñew trop, bu trop, Yalla trop, trop, ñewé dinañu amul responsable politique bu mus a jëflante ak garage Inshallah, bo len ñëwé 18h dinañu jëflante lo xamné ne responsable politique musul jëflante nonu ak wa garage ma ngi len di sant bu baax ma ngi len di gëreum di len laaj inshallah le 30 na Benno Bokk Yaakaar triomphé dans la commune de Mbaou, na Benno Bokk Yaakaar triomphé partout au Sénégal. xamante fas ñu ko amal ci ñaar fukki fan ak benn ci campagne bi lé comme rek ni nga xamanté mom leen ko seen njit bi waxé won wayé tamit seen kilifa di njitum réew mi Macky Sall. lépp dal jaar yoon ba parti bi di APR dal di am rek majorité ci assemblée. son excellence Macky Sall ak leader Benno Bokk Yaakaar yi santané euh ñun dañu def suñu programme 21 jours boo xam ne benn jour seulement la jël pour def caravane yeneen jour yep ay visite de proximité la def pour dem waxtan ak population yi xamal ni ambition président mais xamal également li nga xamné xamone président réalisé euh, dans le cadre du plan Sénégal émergent Nous avons am retour d'information euh neex na ci xol parce que population yi sympathisants yi militants yi ñom ñep ñu ngi wax ni inshallah liste coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga le premier ministre Ben Abdallah Boun Abdoulaye Dione moko diriger mom moom voter ñuy fas buñ fi paré Petit mbaw extension euh, dugg waa dugg ci Promocap bi ensuite ñu wara a dugg euh, fi nga xamné mom moy benen parti Keur Mbay Fall bi euh inshallah fofu lañu fas terminer suñu caravane ba ñu yeggee ci cappaandaw la tamit fii nga xamante mooy village bu mbaaw ki nga xamante mooy chef de quartier bi ak soxnaam waaye tamit ak njabootam ñëpp daal dinañ koy jox seen kàddu xabal ko rek le 30 juillet dinañ ko voteel